Thank you.

Thank you. daa jël sa doom. kay jël booy bu waxal booy. booy. Saliou. Daniel. non mais champion. waaw mais dama lay. mais joyeux anniversaire. happy birthday to you mon ami de mais mais mais mais kontaan naa. kenn du yow. vraiment kontaan naa trop. yow loo dund doyul. tu es mon ami yow loo dund doyul. ah yow boo defee nii dafa rëy. yow loo dund doy. maa ngi lay ñaanal aussi tamit vraiment geste bu rafet na. ndeysaan nga ànd seeg safara. waaw Mbaye Diop. Mbaye Diop deux. sama fils a ànd ak mbër ah, baabooy non baabooy mag la <laughs> donc vraiment kontaan naa yàlla na yàlla fay leen te jàppale leen gis nañ taxawaay bi rafet na jàmm ci yow yow borom baax nga mon ami yow borom baax nga yaa ma ne booy te loolu ci anniversaire bi yow kontaan naa li ma ne sa bis nga am. waaw kon doo ko wax mu bàyyi sax. day wane ni yëg-yëg rek a mel nii. ay nit a ngeen. dëgg yàlla. du du lu mu mënul du lu mu yor. mais da ko def ni ma te yàlla tax a ko kóllëre. kon nag maa ngi ci xamante ni seen yaas tamit defee ci bëri fay seen bopp. dana am jàmm bu di faral yëg yàlla. bu bëri non kontaan rek kontaan rek. sa waay champion la de. waaw bu mag sax. mooy ndaalaanu mbali. waaw bu li jëlal lim li kenn waxatu ko. ah mooy li may wax soxlaw ma beneen mbër ci réew mi. Mhm. soxlaw ma beneen xaritu mbër ci réew mi. kii mhm. sama xarit la sama mag la sama mhm. frère la sama lépp la. je suis là toujours avec lui. ndaanaan la. yéene ma lu baax. yéene ma loo xam ne ma réussir. bëgg ma am lu baax. bëgg ma tedd. kon kooku du ma ko gën a dara ci àll. je l'aime trop. moom doomu ndeyam lin li nga nii boobu ba tey mi ngi anniversaire bi lim lu la la ci daj. surprise bi. Mhm. sa waay fii la ne mi ngi fii mi ngi fii xam nga ba tey lii am. kon tey dañuy ñëw. Mhm. liggéey ak moom. Mhm. yàlla may ko gudd fan ak wér. dundal ko. jàmmal ko. ah kay yaa baax rek nga daan bëmbal jël jël bu rëy. incha allah ko rek kor. amiin champion la. Euh, mais <laughs> sama ordonnance rek. bokk Bamba. champion xanaa li. ndawal laa ngi ñëw. ndawal li fi ji wala waa